mbokk yi bi may tàmbali waxtaan am na lu ma wax léegi ci situation feebar bi wër àdduna tey ñu tuddee ko coronavirus boroom xam-xam yi joxe code Covid 19 muy jàngoro joo xam ni bi mu ñëwee ak léegi yàggul ci diggante mois de décembre ak mars wër na àdduna. léegi tuddee nañ ko pandémie pandémie nag buñ ko waxee mooy amul presque réew bu muy tëb te gis nañu ne réew yi gënoon am doole ñu yaakaaroon ci ñoom ne mën nañu xeex feebar tey ñoom ñoo sooxe tey jii boo demee Europe réew yëpp a ngi tëju frontières yi tëj nañ ko nit ñi liggéeyatuñu tey Makka tëj na buntoom ba benn umra mënul am démb ci guddi joxe nañ bataaxal ne dañuy arrêté gum mbiru aj bi ren ba xam fu feebar bi jëm mbir nag bu tollee foofu dañuy fagaru duñu xaar rek ba mu dépassé ñu ñuy doog a jóg am na ñu yaakaaroon am xalaat lool wax dëgg yàlla ne xëy ne nit ku ñuul sax feebar bi du ko laal ñu bari ci loolu lañ laqatu woon wala boog dëkk yu tàng yi dégg nañu feebar bi ñemewul tàngoor feebar bi tàngoor rek sedd la ci boole yem ku ñuul ak ku weex ak ku bulo ñoo ci yem ñëpp lay laal te li tax mu doy mooy dafa gaaw ci wàlle wàll bi moo gaaw looloo tax nag ñu war a fagaruwaat xoolaat suñu bopp ak suñu doxalin mbir bu amee dangay ngay soppi doxalin pour moytu mu gaañ la ndax xejul ci benn réew réew yi ñu ëpp doole fuuf tey jii

Eh, day dal di jéggi dayo loolu war nañ ci waxtaan eh, ak ñi ci war a ngir ñu saytu bu baax a baax démb amoon nañu yaakaar bi ñaar ñi jotoon feebar si ñeent ñi génne l'hôpital wér waaye diggante bi am na yeneen ñaar ba tey ji presque juróom-benn daanaka parce que waa kër gi nga xam ñoo doon dëkk ñoo bokk dëkk ak ki ñëw jóge Italie tey jii muy soxna yi muy doom yi muy jigéen yi muy ñi liggéey ci kër gi ñëpp jot nañ ci feebar bi loolu nag dafa laaj vraiment ñu bàyyi xel bu baax a baax moo tax nuyoo yi mën nañ muñ ba ci kanam joxante loxo bu bari beeg euh, voilà lëngoo beeg yooyu mën nañ ko wàññi ba mbir mi dem boo mën a joxe kudd nañ koy waxee sax conc conc mun nga nuyoo conc boo mënoon bañ a nuyoo nga joxe conc wala ñaari tànk yi boog laalante waaw ñu xam ne ñu ngi nuyoowante parce que loxo dafay laal kanam dangay laal sa bakkan laal say bët donc dafay daal di yombal euh, maanaam jot ci feebar bi te it mën mën nañu éviter di ko wàllante loolu moo tax ñuy joxe.

moytu ko ba yàlla indi fi jàmm indi ko ci àdduna bi yëpp ndax tey jii lu lëmbee la ci àdduna bi te bàyyiwul benn réew